ñu ànd ak Mamadou Mohamed ngeen jëf rëbës ma ngay soog am gan nag Cheikh Béthio Thioune ma ñu yóbbu ca 100 doy na gan sëkk ubbil observateur ndekete Cheikh Béthio Thioune jële gi ñu ko jële ca kaso bu Thiès indi Ndakaaru ki nga xam ne moo di substitut bu procureur di Cheikh na an ak Abdoulaye Assane Thioune di six d'instruction ñoog nit ñee ci yam yëgunu tiñu dañu ko dégg rek xëy dem ca kaso ba ca Thiès ñu ne leen jële nañu Cheikh Béthio Thioune fii ba yóbbu ko Ndakaaru Cheikh Tidiane nii ci yéenekaay bi loolee moo tegul fenn cheikh bi du ëmb boo xam ne danga koy gàddu rek fu la neex jëme populaire nañu muy avocat cheikh bi te nag fas nañu yéene dem ca ba jeex laas enquête ak observateur nañu tàmbali nañu ko ndax cantàkon yi démb ña nga woon ca rëbës dem toogaan nañu ca buntu kaso ba di ñaawlu cheikh Béthio Thioune ak ni nga xam ne noonu lañ doxalee ak moom réew mi quotidien nañu booba fekk na cheikh bi ci jëmi boppam ma ngay ñaawlu ko jëlee ca kaso jàdd ne du ko lekk la si ne kay ne ko yëgoole xew Cheikh Béthio Thioune la mu doon bañ moo di lekk ca lekk ga ñu jox prisonnier ya la mu bëgg moo di lekk boppam te na mu ko sàkko noone la ko amee ndax ki koy faral di toggal bu ko dara jotul kookee la ñu jëli mu toggal cheikh bi añ bu fatt taraj mu lekk ca ba suur Xaadim Thioune di doomi Cheikh Béthio Thioune ni ñu ci xët mu njëkk réew mi quotidien kilifa yi bu ñu teggul seen tànk fu ñu ko def ñun ñëpp danañu ànd dem ci rëbës ne leen jàppale ko may danañu daje ak ñoom ci yoon Cheikh Béthio Thioune ñu jëlee ko ko ci tefes gi ci ndakaaru wal fajir nañu mbir la mu jaralaaj ndax procureur bu Thiès ak doyen des six kenn yëgalu leen ko nañu ko yëgandoo ñun ñëpp ujaaji Sénégal ya ca màkka ci doxum ñaxtu la jëm populaire moo ñu ko xëy xibaar la metti ba tax ñu fas yéene wàcc ci mbeddi màkka yi wane ci doxum ñaxtu moo di aj gaak muy demee la ne dara baaxu ci lekk gañ leen fay jox baaxul moo tax ñuy sàkku ñu remboursé leen koppar ya ñu fa joxe woon Sud Quotidien a woon ni doole ji fi nekk ak loo xam ne kenn musu a xalaat yéenekaay bi nañu loolee moo nar a jengal Sénégal ki fi jiite woon jamono porum Dakar di Bara Sadi observateur nañu la koy jengal moo ngi ñëw jamono ji rapport boo xam ne dañu ko def ca porum Dakar na mu doon la mu feeñal moo di waa ji di Bara Sadi sàkkal na pexe lu toll ci fukki milliards ak juróom-ñett liggéey aju woon ci port du futur di xalaat bu fi Abdoulaye Wade jibaloon bañ a la ndax mbiri cocaïne yi ki drogue ñu ngi ci tudd Luc Nicolaï jamono ji gendarmerie teg na koy gët ay awakam moom Luc Nicolaï journal bi nañu porté nañu plainte ndax nee nañu seen waay ji ay nit ñu koy xoxotal ngir bëgg a faat bakkanam ñun ñëpp nañu ànd delluwaat ci observateur xooli la nekk ci xët mu njëkk ma seen nas ndaw a nga fa soo xam ne ab lesbienne la lesbienne nag ci ñu ko xamul moo di jigéen ñi sëy ci seen biir soxna si di lesbienne bi di fa xamal waa ne li xam ba xam ko moo di sëy diggante jigéen ak jigéen dara dàq